waaw oh, mais ah, ah, ah, kii bi wàcce kaamil bi ñoom Charles Niang Guirène seen groupe bi quoi xam nga maa doon seen président biñ gën a nekk xale ñu ne ñoom ils sont reconnaissants loolu yàgg na léegi ñoom ay mag lañu de 60 ans xam nga léegi ma ne woon seen président ñu jékki-jékki toog benn jour ñu jékki-jékki woo ma ne ma dañ may sargal ni mu fi mu soxee ko laay wax de ñu ne ma dañ may sargal ma ñëw mais jour boobu dama waaru ñoom ñëpp ñu nekk fi nag ne dañ may sargal ko ñu ñëw def añ def ay keeg yooyu bi ñu bi ñu paree ma ne leen nag li ngeen def ni rafet na quoi reconnaissance la quoi fi ku quoi vraiment geste bu rafet la woon ah. lor j'avais beaucoup apprécié ma ne leen bon désormais on va essayer de faire en sorte que ñu mën chaque année ñu ñu dajale dajale ñëpp di kaay ñi fi jóge woon noonu la soxoo euh, aji waay dawlu yi dañu am part bu réy si ñun parce que nit fi nga jógee doo ko mun fàtte mooy ñoom ñooy sunu ay royukaay su ma limee damay juum jëlee ko ci ñaamataar Pape Ndiaye Limamou jëlee ko ci euh, imaam yi fi nekk Pape Bay Sall vieux Rafet juuf alaaji ma alaaji Omar Mbeng su ma demee juum ñoom ñëpp waa Médina yëpp ñun lii la am pour sargal leen ñaanal leen yàlla mu fekk lañ fa ñu ne mu yoon yiw bare si ñoom yàlla xare leen ñoom ñëpp àjjana ak ku leen fa ak kuñ fa Eh, kii kii dafa nekk ay ay photo yoo xam ne souvenir yu rëy rëy la quoi souvenir yu mag a mag a mag ah, ah, yu mag la xoolal rek presque am na yu manqué yu bare xoolal ñi nga xam ne yëpp fekkoon nañu sax troisième euh, quatrième édition bi troisième édition bi ñi ko fekke woon sax am na ñu si dem comme ay Charles la Gora Mbaye ah, premier adjoint au maire xoolal euh, laay bu jako xoolal am na ñu bare ñoo xam ne jóge nañ fi après ah ah, ah ñu bare jóge nañ fi après Charles sa sa maman xam nga waa famille bi quoi alors euh, bare na ñoo xam ne dañ jóge nañ fi. yow daal kon daal yow daal jàpp nga ni lii ngay def nii yàlla rek a tax. mais loolu moom du dañ ku ku ma xam Medina xam ne man loolu loolu aw ma si mosuma am benn sikki sàkk mosul am même bi ma nekkee Damels président Damels bi may créé Bekos Bekos bi mu koy créé maa woo ñëpp ñoom fii sax jekko boobu amagul woon ñoom ñoom ñoom <laughs> ñoom Ablaye Ba ñoo ñëpp ils ont joué à Bekos avant jekk ñuy créé jekko jekko quoi xam nga alors mais boobu par exemple c'est-à-dire que bi bi may créé Becos c'était dans les années 69 70 avant l'officialisation des nawetaan xam nga alors tu vois donc man je je suis habitué au au mouvement associatif quoi j'ai toujours des trucs ay cours de yooyu parce que en ah, jeune enseignant déjà moi je m'occupais de ça quoi quand je en vacances ñu bare man dañ doon ñëw si xam nga maa leen di jox ay cours de vacances gratuitement après créer Bécos ah ñoom Pape Ndiaye ñoom Souris ñëpp joué nañu si Bécos <laughs> est-ce que comprend li mu wax man man man sama état d'esprit la quoi xam nga j'ai toujours voulu regrouper les gens avec désintéressement lii nag initiative bu boppam la yéene bu mu am la ci Médina moo na ko rek ci yaayam ju baax ji wala paa bi mais daf ko def pour waa Médina yëpp ñu fekk ko ci ba léegi fi mu nekk nii lépp lu ñu samp moom moo ko taxawal lépp lu ñu samp laa wax si loxoom la jaar mu ngi nii xanaa rek am mbégte di ko ñaanal moom yàlla li ñëpp di wax yàlla na fi yàgg te wér li mën ren daaw yàlla mun lu ko ëpp yàlla may ko war gu yaram may ko fan wu gudd ñun ñun ay ay rakkam maanaam bolivien yi les amis jàmm joyeuse bande la Médina Médina yëpp entièrement ñoo topp ci ginnaawam Pape Ahmed amuñu lul di ko ñaanal yàlla. man la Moussa Sow dëkkoon ci biir école Médine sama papa moo nekkoon gardien école Médine moom ak Pa ak ku ñuy wax Parapit euh, de de de 1935. ba 77 bi fi sam papa di jóge waaw kon bu ma ñëwee fekkee bés bu mel ni du ma def lu sant yàlla sant samay morom ñi nga xam ni ñu ànd ak euh, ba organiser lu mel ni duma def lu gën a sant yàlla gërëm ko it ngir buñ dee dugg ci wàllu histoire politique ku nekk dégg na Seynabou Gueye Adja Mère seeni Gueye Ndaté buñ dee dugg ci wàllu sport xam nañ ni fii moo doon base u France Sénégal ba ñëw si biir jaraaf bu dee ci wàllu nawetaan ku ne dégg na ci Mistral ñoom Pam Ndiaye euh, ñoom Louis Gomis nga xam ni ñoom ñu ngi nekkoon Aigle d'Azur kon base sport bu Dakar fii la fii la foyer judo fii la jaraaf juddoo ñu ràññee ci ay doomi Médina yoo xam ni bàyyiwuñu seen bopp bi waxtu jàng jotee jàng nañu yàlla sunu borom bi teral ñu tamit kon bés bu mel ni nga xam ne dañu fi daje di sakku ñaan ci yàlla sunu borom bi mu may ñu ñu fekk ay at yu baree baree bare bari sànq bi ma ñëwee bi ma xoolee photo yi sama rangooñ gën na ndax samay morom ñoo fi nekkaloon yàlla sunu borom bi woo tey. ñu nekk ci booram ma fekk fi tamit samay mag léegi nii may waxe yow nii maa ngi gis nii baaba mu weex tàllak ba jaww sama yaram gën tee daw yow Gallo tamit maa ngi lay remercier du fond du cœur bi nga xamee ni démb da nga yëkkati sa téléphone ak yëg-yëg bi nga am ci man ak cofeel bi nga am ci man ni ma kat magu Médina yëpp dañuy fas yéene daje tey wàccee kaamil man nag léegi maa ngi dëkk ku waxaam nekk fa ak imam di jokkoo ak doomu aadama yi di jokkoo ak yi di jokkoo ak sportif ngeen jëf maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaam. maa ngi tudd Babacar Niang ñu may wax buuba fii laa yaroo ci Médina ci rue 8 angle 23 jàng école Médine fii laa jàng école primaire fii laa jàng école secondaire ba tax na koñ bi ñi ma xamul ñëpp ñi xamul bariwuñu xanaa peut-être génération yu mujj yi waaye ñi ma fa ñëpp a ma xam. waaw euh, bés bi nag moom euh, bésu am solo ci ñun ndax suñu benn mag bu tudd Ahmed Ba Pape Ahmed Ba ñu koy Gilbert moo ko initié woon yaa y a quelques années de cela bés bi nag ñi ngi koy doxal at mu nekk ñi ngi ci wàcce kaamil bu 31 décembre jotee euh, woo waa koñ bi yëpp mag ñeek ndaw ñii ñëpp képp ku mën a teew rek teew nga fi tey mu nekk bés bu ñu fonk boo xamante ni dañ ko bëgg a perpétuer pendant des années et des années bàyyi ko fi sax bu ñu fi jógee ay génération yi ñëw suñu ginnaaw continuer ko ndax dafa nekk bës bu am solo ndax suñuy way dawlu yi dañuy ñaanal suñu maam yi suñu mag yi suñu papa yi suñu nijaay yi suñu frères yi suñu sœurs yi ñi fi nekkoon ñëpp ci ay mag yu baax ci koñ bi ñoom la ñu boole ñoom ñëpp ñaanal leen ci biir ci bés bi euh, ba tax na mu nekk lu am solo ci ñun euh, ñi ngi ciy sant nag. ñii fi ñëwoon ñëpp teew ci waaw ñii doon wàcce kaamil bi ak euh, ñii fi teewoon ñëpp ñu ngi leen di ñu ngi leen di ñu ngi leen di sant di leen gërëm rawatina nag ki nga xamante ni mooy Pape Ahmed Ba mu xam ne moom moo initié bés bi donte ni sax xaaye sam la ciy def ak ay moyens bi mu doonee tàmbali moom rek boo ko yoroon jël ko en charge waaye au fil du temps ñi ngi dem di ko décharger ndànk-ndànk ñun tamit ñu jël suñu ay contribution suñu participation di ko ci def ba tax na ren ji daanaka bon moom dugal ñu ci loxoom moo moo moo tële lépp daanaka même bu ñu ci defee dara sax ñun duñ ko duñ ko fésal duñ ko fésal ndax fésal bi amul solo initiative yi ñu ci jël moo gën a ëpp solo liñ ciy def symbole bi ci am moo ëpp solo xaalis bi ñu ciy def te mu nekk loo xam ne nag wax dëgg yàlla ñu ngi leen yàlla mu continuer lu lawlu yàgg yàgg yàgg yàgg yàlla nangu ñaan yi ñi nga xam ne ñoo ñu jiitu suñu borom yërma yërëm leen jégal leen ñi nga xam ne ñooy topp si seen ginnaaw aussi yàlla yàggal leen fii ñu leen di ñaanal may leen wér ak wérle mucc ak mucclee